production vous présente grand gala de lutte sargal Baye Mbaye MC Niass ma ne ko loolu dana mel na Sénégal ngay sargal ndax buñ ñee Baye Mbaye MC Niass danañ xalaat Maulana Cheikh al Islam Niass Kumba Abdallah danañu xalaat jeunesse su Sénégal ndax Baye Mbaye MC dee la ñëpp ko bu dee bu Kaolack jotee ñu ne dugg francs la VIP nekk francs ñu ne ngooru keroog tàndomaayo bu Sibassor moo fay daja ak Cité CFA bu écurie Ndar ndaw 30 bu Koundam nekk écurie Saloum mbooloo bu ñëwee marché central topp ko mbaaru yàpp topp ko moo fay daja ak général bu Ninki Nanka Mbose Géej le leader qui monte en saaf nekk écrit okas moo fay dajeek ak sidaat bu mam njambaan buy ñëw waa ñaari li ñëw ndey jóob ne duma jaay café damay ànd ak sidaat ba biir stade combat spécial bi kormar yi nekk écrit ajjuma juuf buy ñëw papa ngaan sox sox di ko indi moo fay daje ak onge njaay xalem niñ ci nànk baa ngi noonu bay waree ci elton grand combat bi nag ñu daal di koy jël jagleel ko bay mbay MC Niass muy dox ci diggante caat bu écrit ajjuma juuf chat le grand lutteur caat mi nga xam ne bu ñu doon élire fii ci kaw la ndangaan le meilleur lutteur de cette année moom lañ koy élire ñu ne kan lay dajeel ñu ne Balla gay ba okas manentaa naan baa ngi noonu suy ñëw boy saalum moo koy indi Balla Gaye bu okas mun ne deux minutes laa ko may su ñëwul ma egg ci kawam waaye mbokki amateur yi kay way làmb ja mooy Fatou Baye Fall waaye ki koy tëgg mooy Baye Talla Seck borom tambour major bu mag jotee ci les deux voies ñaari télé dënd ak lycée technique suuru combat bi nag face à nduur nduur ak Sa Thiès ma ne ko ca Yamoussoukro production saa yoo tëggee mu neex de waaye tey daf nga lu kenn mës a def ci biir Kaolack ndangaan rawatina biir Sénégal kenn nga tuddee